remercier association de ñeeño balak de ñeeño géwél ak euh, lawbe di wax ne aw ma seen wax dëgg si yàlla cité bi na mën naa ñaari cité xaw ma ñetti cité waaye ñu taamu ma ci jox ma boole ma ci marraine bi ci guddi defuma ci lu dul kontaan ak di sant yàlla bu leen ñaanal seen ànd bi yal a saxal li nga xamante ne def nañ ko bëgg a gën a soxale li nga xamante la ñëpp di ñaan ay nit buñ dëkkee ci ci quartier dañuy ànd rawatina ñeeño géwél ak jéer te ñoom ñuy wax dëgg yàlla ñuy ay nit baax kon bu ñu xewlee yu mel nii daf ciy baax seen i géer ñëw comme ça bokk yeeg am di jàmm yëpp xam ne dëkk bi moom macha allah. Euh, ñu woote sargal seen géer tey géer nga xamante ni yéen la ñuy sargal tey lan nga ñu mën a wax comme seen relation. wax dëgg si relation relation entre frère ak sœur ak sœur la ñu la ñu wax dëgg yàlla ñoom ay nit yu baax lañu xëy na ñoom ñoo ko mën defal lu ko mais ñu nit buñ ko mënoon defal leen ko ndax ñoom ku nekk rek taxawu nañ bu xewaamee ñoo ñuy taxaw bu naqaraamee ñoo ñuy taxaw kon ñoom lii ñu def nii du ma du lu ma bett daal parce que loo xamante ne suñu a la xaj na suñu diggante ak ñoom mais kan moo jaar ci sañse bi waaw madame Cissé Fatou Abdou moo fi waaw moo fi jaar waaw julli la wala pour événement non pour événement bi la rek waaw pour événement bi la merci beaucoup ñu lay jaar merci merci beaucoup madame يومك وديارك يتخن بسا بسا بجمري بني خني جاتي جواكي أجرت نيجان كم قد تقول يا ربي كسنتك سريك بابا بايو سريك ماسور سريك ماسور أي برم دراي برم درافوي برم سامانين برم سواجي لوتك يا بي سريك حاكم رب الخير والأخلاق سيد فلو الباية فلو أو بوسا شامن المريم يا يمين يا بيا سيد سرين فالوي ناسي كنم لوكو سلام سلام لوكو سرين فالوي ناسي كنم fataka da kasar da fasana ku sai ta wannan ya kana fataka waaw dama euh, damay gërëm di sant yàlla ba pare di julli ci yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam tudd Lalla Aidara dëkk fii Almadies deux ma nekk ak samay nawle fii euh, jigéen ñi fi nekk ay euh, jigéen Mary Teuw ñaan lañu jigéen Mary Teuw Niane ñoo fi nekk moo tax ñoom bu ñuy organiser dara dañ ma ciy boole yàlla dogal nag tey nag ñi def ñu nag marraine moo tax ñu ne nag il faut ñu ñoo màggal bés bi ñu màggal bés bi ànd ak ñoom féete bés bi bu bés bu ñun. lan nga yëg tey nga nekk jigéen bu jël la def la marraine. nga ànd fekk say nawle yow rek nekkoo ci gox bi lan nga yëg. dégg bu baax je pense lan nga yëg tey yow rek kontaan kontaan am mbégte parce que samay mbokk lañ samay xarit lañ samay dëkkandoo lañ yëg-yëg mooy kontaan rek kontaan di kontaan sant yàlla. lan nga leen di wax ñoom ñi nga xam ne ñoo créé lii première édition. di leen encouragé di leen encouragé parce que elles ont su aussi euh, regrouper toutes les femmes nekk ci cité yi. Almadies Madina aussi opportunité bu rëy la pour femmes yi ñu retrouvé wu aussi de temps en temps ñuy waxtaan di fàttalikoo di ree loolu def am solo muñu kenn ku dul yow mënuñu leen a fay suñu xol dafa seen buy ñëpp wuy si nañu macha allah kontaan seen sargal bi yëpp ay jigéen ngeen sargal lu tax ngeen sargal jigéen ñi sargal parce que ñoom dañoo baax si ñun dañoo baax si ñun dañoo ñoom xanaa soo soo amee naqar ñu bokk koog yow soo amee bànneex ñu bokk koog yow soo xewlee ñu wuy la di la soble di la digal lu baax di la waxal lu baax ñu dëkk nag dëkkin rafet te dara ñaawul jërë ngeen jëf mbokku internet yi ñu topp ci Dakar Live maa ngi leen di bu baax di leen ziar mbégte la ngir jàkkaarloog yéen alors tey ñu ngi fii ci diwaanu Rufisque li ñu fi indi bokk ci association bi nga xamante ni moom la ñuy woowee euh, ngéwal gi euh, bala mañsa et lawbe alors ñoom ñuy amal li nga xam ne moom mooy sargal seen géer amal ko ci diwaan bi Euh, ñu fekk fi nga xamante ne moom mooy présidentu mouvement bi muy Binta Thiam dama koy nuyu bu ko defee ñu daal di dox suñu waxtaan ñu wax ñu rek lan moo waral tey euh, ñu daal di créer li nga xamante ni moom mooy sargal suñuy géer Binta maa ngi lay maa ngi lay fay naka mu maa ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah ça va ginnaaw bi ñu sant yàlla na julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall. ndaxte euh, defe naa place bi ñu nekk nii du lu ñu liggéey ba sut ci suñuy morom ba ñu jox ñu euh, pour ñuy gérer euh, defe naa fi ma nekk nii di ko gérer defe naa maa ci gën a ndaw wax dëgg yàlla ñu bool lépp teg ci sama loxo maay def maay dindi daal kon maa ngi leen di sant waa mouvement bi yëpp di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay mouvement Ngéwél gi bala men si alaw be nag dañoo def benn association di ci di di def suñuy sew ba mu yàgg ñu ni pourquoi pas mënuñoo sargal suñuy guerre léegi mu nekk première édition wax dëgg yàlla bëgg koo commencé ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina bi dañu doon def suñu sew sew sew comme dañuy garder par yenn saay mois bu nekk kenn ku ci nekk ñu am cotisation bu sew comme ku nekk joxe dara ñu ñu ñu ñu ci lañ commencé defar suñuy carte soutien affaire yooyu def ci sunu yu bëri nag daa di woo Baara Ndiaye pour mu ñëw taxawul ñu fii Cité Sir Medinatu Munawara ñu sargal sunu géer yi fi nekk ndax ku xam géwél xam ñeeño bala mañ sax xam ne defar rek lay def kon dañoo bëgg ñun sunu dëkk bi évoluer pare na saa ñu génn divertiru kon que fii dafa enclavé wu trop du ñu gis benn événement du ñu nekk ci benn kii daal tey ñu wax dëgg yàlla loolu lii daal moo ñu yëkkati saay wéetaay bi wax dëgg yàlla merci beaucoup wax dëgg yàlla def def ambiance ka foore daal sànneeku daal def luñ saf nag jour fête de la musique ñu daal di koy woote côté yooyu la nag dafa tombe rek nag tombe waral ay gaaf xam nga mm. booy def lu baax rek wax dëgg yàlla tombe rek nag mm. def nañ ko ba lancer sunuy carte ki njëkk a jox carte moo ñu wax ne jour fête de la musique la wax dëgg yàlla ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant suñu préfet bi ci koñ bi madame Traoré moom kenn du moom suñu chef de quartier Lopez kenn du moom wax dëgg yàlla ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ñëpp a ci jàpp jaaxlewuñu dara lu ñu soxla rek ñoom ñu taxaw ci ba mu jeex yàlla wis na ci ndox mu sedd gu yu bañ egsi fii am suñu autorisation am lépp lu yomb ñu ñu def ko daal ba ba ñun sax dañoo am lu kawe suñu njort di sant suñu géer ñëpp nag wax dëgg da ngeen bëgg maanaam euh, dëkk bi ngeen dëkkandoo ci diwaan bi mu gën a neex ngeen gën a boole gën a ratax gën a neex ku ne fonk sa moroom ñoo xam ne dëkkandoo jaam moo ci gën dëkkandoo lii la foo kaf ambiance kon ka bu lu musiba amee ñaanuñu ko yàlla ñoom ñoo fay jiitu lu mu mënti doon tamit ñoom da ngay geesu gis leen ñun lii lañ xam ci dëkkandoo ñun géwél ñeeño baraman si elaw bi Eh, lii ngeen def muy sargal sunu ay géer dafa bokk dafa tombe ak benn série bu ñuy wax bete bete eh, te gis nañu série boobu eh, ni mu indee coow ak kàddu yi nga xam ne Soumboulou Bàcci yëkkati woon na ko tey mu tombeek ngeen di sargal seeni seeni géer lan lan nga mën a wax ci mbir mi ak ni mu tomb waaw wax dëgg yàlla série boobu man maa ngi koy maa ngi koy apprécier trop da defe naa lu def am na lu tax mu def ko te suñ toppee ba ca biir dinañ gis lépp pour man wax dëgg yàlla ndax président bu toog géwél bu nekkul ci wetam la ñeeño day toog ci wetam xaw ma ndax yéen a ngi ciy bàyyi xelam déet président du toog mukk wala géwél ndaru ko wala ñeeño il faut ñu toog ci wetam du dëgg ku xam-xam ni ñeeño ak géwél fii sunuy maam ñoo ñu fi bàyyi loon lii dañ koy topp ba mu jeex ay géer ñu baax la ñu am ñu am yëg-yëg si ñeeño bala mañ see ndax defe naa soo taxawee ci làng yóbbu woo ñeeño yóbbu woo géwél yóbbu woo lawbe yow di nga fa wéet de kon mu leer na ne sumbulu defe naa lii histoire la te day yeete laa ko teg daal pour man yeeta la daal pour ñu wax li ñuy dund ci kër yi moom la ñuy génne ndax dund yii dafa am ci biir kër yi moom rek la ñuy génne dañuy yeete pour man. yéen ngeen sargal seeni géer tombale ko. waaw kay ñu woote ñun sargal suñuy géer tombale ko ñuy wane ne àdduna du dara yeete rek la. wax dëgg yàlla ndax ku xam ñeeño bala may sax xam ku riis ku xam géwél xam ku riis ku xam lawbe xam ku riis wax dëgg yàlla namuñu dara nag. tey euh, lii ngeen def du lu yomb rawatina ngeen nekk ay jigéen bëgg koo gën a euh, jëmale kanam parce que bii mooy première édition bi est-ce que tey euh, ki nga xam ne moom mooy meeru gox bi def na ci li ci war ndax jàppale na leen ak ban autorité tey moo nekk ci seen ginnaaw pour jàppale leen ci seen association. wax dëgg yàlla gisuñu benn autorité buñ jàppale te it demuñu ci maire bi wax dëgg yàlla doon nañ ko kii sax mais après suñuy activité moo ñu ëpp doole ba xam ne daal pour ñun mën nañu mën nañu première édition bi mën nañ ci bàyyi sunu waa demal ci sunu bopp wax dëgg yàlla chef de quartier bi nekk fii muy madame Mbaye ku baax chef de quartier Almadi 2 dem nañ fa wax dëgg yàlla te dinañ fas wuy si wax dëgg yàlla ñaareel bi mouvement NTN Mary Teuw Niane ñu ngi fii lu ñu woote ñu ñëw yónnee nañu ndaw wax dëgg yàlla kenn amul seen faydaal mais pour seen loxo yu ñoom xaaruñu ko ci woon. association bii ngeen créé est-ce que euh, pare na pour dox ci wàllum politique wala da ngeen ko bëgg def association boo xam ne pour gox la. wax dëgg yàlla pour l'instant nii mënuñoo expliquer dara mais pour l'instant nii moom xaw nañ ci jëmbat ci sunu fula joo xam ne association bi social rek lañ ko bëgg a def. loolu loolu ñëwagul mën na am ndax lii mooy première édition waa ndaxte fu ñu woo pare yenn saa yi bu ñu amee taa dañuy wuy ji te wax dëgg yàlla kuy dund na da ngay def fi kuy dund ndax kuy dund ku ne nekk ci àdduna bi di ambiance di kaf di foo di ree il faut nga dugal sa loxo nag ci politique bi nag wax dëgg yàlla dañuy dugal suñu loxo ci politique bi takk ci rëpp ba mu neex wax dëgg yàlla mi ngi noonu Euh, ñi ngi lay sant en tout cas di la di la ñu bàyyi la nga nga wax sa kàddu gu mujj ndax nag bâche bi yaakaar naa ni ñi ngi fa toog di la xaar te ambiance bu am importance moom moo nara a am fii kan mooy tëgg guddi gi Baara Ndiaye ci caaroy géej mooy tëgg guddi gi wax dëgg yàlla bi ma sante ñëpp nag maa ngi sant sunu waa mouvement bi ñëpp aw ma seen fay ku ci mel ni maire Khady Niang mama Nogoy Caam ay dëj jaañ waa dëgg yi ay dëgg yi lawbe joor ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ak sama rakk Mati Mbuub ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen caana sekk ma fàccaam ñoom ñëpp naate wax dëgg yàlla lii dafa foor li jëntiwuñu xooluñu gisuñu lu ma leen ni lii la loolu la ñuy def fu ma teg sama tànk rek ñu fekk si fa ma fa loolu yombul yombul wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan daal yàlla lafal ñu cat musal ñu ci musiba musal ñu ci balaa ndog ndog deegu ñaaw merci beaucoup bëgg nañ ñëpp jàppale ñun ñi ngi woo ñëpp daal ñun ñu ngi woon ñëpp ñu jàppale incha allahu rabbi yooyu yëpp daal wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan daal mu dem di ñaanal sunu benn xarit nag bu baax soxla nañ financement daal jigéen ñi fii jigéen ñi fi nekk takk seen digg xëy liggéey di dóor waar ba ngoon ñu tëdd lañu xam ñun ñëpp nag di ñaanal nag sunu benn xarit boo xam ne daanaka ñoo nekkoon di waajoo événement bi di ko tracé ndoo mu wax dëgg yàlla mu bokkoon ci sunuy géer yàlla jëlee ko fi na ko yàlla yërëm te yeexe ñu mam jaara Touré yàlla na xippee àjjana yi fi daw si di ko ñaanal àjjana gën a fi mu nekk gënal ko fi mu jóge daal ndax ku baaxoon na wax dëgg yàlla ñu ngi koy rendre hommage mhm. merci beaucoup